choses qu'on a vécu te dinañ ko dundaat parce que euh, politique daa am yoo xamante ne daf seen laxasu dafa mm. ànd ak ñoom. Mm. daa am ah, ñoo xamante ne a ànd ak moral. <laughs> Ah. <laughs> si yoon si yoon. Mm. mais daa am ñoo xamante ni euh, leen dugal ci politique. du euh, du intérêt général. Mm-hmm. leen dugal ci politique leneen la loo xamante seen bopp. donc am na doxalin yoo xam ne ñuy doxali euh, mais li gën a am solo tey au-delà de ce message là mooy li message bi génne yëpp ñu fexe luñ ko appliquer. te sànq oustaz a rappelé na ko kenn ko mën mooy le chef bi ñuy xaar euh, ni nga ko waxee oustaz tey ñu tëddi nelaw te dégguñ ko dina doon lu doy waar. j'espère que du egg j'espère que duñ ci egg parce que dans les prochaines heures mun na nekk n'importe quand mais ñu tëddi te dégguñ le chef de l'État mën na poser problème parce que bu fekkee ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi dernier rempart yi nga xamante ni wax nañ donc ça veut dire eggali moo ci des. mottali googu kii mën a jël décision rek moom moo ko def te moom la bu jël décision bi ça veut dire que li ñu wax que egg na ci moom est-ce que egg na si ak si ak si xale yi nga xam ñoom ñooy génn est-ce que egg na si soxna yi préparé wu génn ëllëg est-ce que egg na ci manifestant yi mm-hmm. soit ñi bokk ci Sonko wala ñi dugg si manifestation yooyu mm-hmm. ba def li nga xamante ni gis nañ ko Sénégal ndaxte li ñu gis fan yi euh, épargné wul kenn du ñooñu du ñun ñi toog si plateau bi mm-hmm. donc muy mbir yoo xamante ne c'est des questions légitimes kan lay waxtaanal xamaguñ ko yan yeneen acteur la yu weesu acteur société civile acteur euh, kilifa diine yi xamaguñ ko et peut-être sax duñ ko xam mais li si am solo mooy li fay tukkee. Mm-hmm. li fay tukkee lan la ban discours la war a tenir tey euh, population bi ngir euh, génn li nga xamante ne mooy fi ñu jëm euh, trois jours yi njëkk yi lundi mardi mercredi bi mm-hmm. lu nar a tar la parce que ñenn ñi ñu ngi naan fas yéene nañ mars ñetti jours. Mm-hmm. waa waa waa m wax nañ ko démb. mouvement pour la défense de la démocratie wax nañ ko démb lundi mardi mercredi te ay soxnaa ko jiite. si si marche boobu. muy ëllëg bés bu ñu soxna si àdduna bi. weer bu ñu jagleel soxna si àdduna bi ñooñ bu ñu wàccee si mbedd mi takk der yi wàcc ak ñoom si mbedd mi armée bi ñu gis ñu dugg Dakar wàcc ak ñoom si mbedd mi ñu tëj école yi université yi mm-hmm. euh, communiqué bi génn na mm-hmm. ñu tëj université yi donc lan moo war a xew mm-hmm. est-ce que du moom jotul nag mu bàyyi bañ egg si lundi bi parce que lundi bi la nar a tàmbali buñ ko tàmbalee ba pare Sonko audition bi c'est demain à 11 donc euh, dañu nekk situation boo xamante ni si lu ndaw mën na taal réew mi te appel à l' apaisement kese moom moo mën une solution te apaisement boobu nag moom moo ko mën. Hmm. Pape euh, est-ce que yaakaarloo ne suba mën nañu ko àtte ñu bàyyi ko bàyyandi ko. yaakaar déglu ko bàyyi ko mu ñibbi loolu laa xaw a gën a yaakaar. wa mën na nekk cest à xam nga bu ñëwee ci kanamu juge juge bi am na possibilité yu nekk pouvoir yi ko yoon may dafa bëri mën na ko déglu bàyyi ko mu ñibbi mën na doon bàyyi négandiku tout comme aussi mën na jël beneen dogal loolu moom lu mën a nekk la. lu mën a nekk la. Mm-hmm. a moom parce que possibilité la boo xam ne ñu ko ko ci 11h te manifestation bi 15h lañ ko namm. donc euh, lu nekk ci diggante bi <laughs> mën na cee xew. <laughs> lu nekk xaj na ci na nekk jàmm ah, <laughs> bi muy gën lu mu wax kilifa yee woo. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. amul lenn lu si ruslu. non c'est kii sax en réalité li mu ne day wax ak kii cest dire waxul kenn. kenn la waxalul xam nga xam nga xam nga Macky Sall bu ne day waxtaan ak ay ay xaw ma ñi may waxtaanal mais kan lay waxtaanal. kan lay waxtaanal Moustapha Niass lay waxtaanal Idrissa Seck lay waxtaanal waaw xam nga kooku moom. kooku moom cest à li war. du mooy waxtaan mais mooy mu dem ca fa mu dëkk ñu daajal ko gàngu naaj yi mu tëdd foofu toog di xool nit ñi de loin. parce que vraiment ku bind sa introduction. depuis Senghor ak yooyu je crois que war ngaa mën a nag concourir ci Ablaye Wade waxantuma nga traversé ko ñëw ba ci Macky Sall kooku amul lu ñuy waxtaan ak moom parce que moom gëw ne dina jël tanaaj wekki mais daaj lay def mhm. li ma la mën a wax mooy waxul ak kenn problème bi xam nga lan la moom dañu woon mbir mi yoonam newu ci au début li mu war a def mooy en tant que kilifa dama gëm man damaa gëm ne sax ab benn dossier yow ne nga sa yoon nekku ci kilifa nga un président de la ce que yow tey war ngaa mën a génn amoo lenn looy wax lu dul ci benn dossier nangam ak ki nangam man xëy mënoon na bind def ab communiqué regretter li nga xam ne moo am ci toj yeeg saccage yeeg yu demee noonu waaye concernant dossier bi lii awa wax moo ci nekk gàntal gu rafet googu mën laa gëm parce que mënoon naa wax ak sëriñ si wax leen la nga xam ne dégg nga bu ko bu ñu ko eggee askan wi ñamal leen ci rek xel yi mën naa dalaat xol yi dal mais problème bi mooy gis nañ ni nga ko waxee xaw ma oto ay oto yu ñëw fi man dégg naa ñu ne loolu ay image yu la dégg naa ñu ne ñu demoon entraînement bay ñëw la dégg naa dégg naa. xaw ma loolu lu am la loolu lu am la loolu moom lu am la. ah lu am la image yu yàgg de yu récente la. yu récente la lu am tey jii nii waaw kay léegi nag ñoom ñoo xam lan mooy seen yitte. kooku moom ay lu leer lañ. lii seen yitte ñoom ñoo ko xam ñoom waaye bu fekkente ne fa ñu war toog ak fa ñu war a féete askan wi xamuñu ko ba nar a ànd ak Macky Sall mu dugal leen ci ñuy confronté di jàkkaarloog askan wi dama ne la lu mën a xew Sénégal ñoom ñoo ko indi xam naa dañuy def dernier tour rek comme que la journée promet d'être longue ñu dem euh, reposer wu tuuti bu fekkee ne le président Macky Sall day wax ak askan wi nag ñu jugaat ñëw sol suñu dàll rek ndax dañoo euh, daaj suñu mer gàddu fii man man je pense que Maguette duñ duñ egg foofu parce que moment nekk nii décrispé la faaw ñu décrisper apaiser la tension mm-hmm. même dans les discours même dans dans, dans les comportements loolu la ñuy xaar ci acteurs yëpp mm-hmm. que ça soit presse que ça soit société civile mm-hmm. politique religieux parce que euh, mouvement boobu lañ nekk ñu dundu fan yi ñaaratuñ ko dund te bu apaisement amul moom la ñuy dundaat ëllëg ak fan yi ñëw donc muy mbir boo xamante ni du épargner kenn appelons à l'apaisement ayons confiance peut-être euh, nu mu tudd euh, le bénéfice accordons lui le bénéfice du doute <laughs> moom moom moom le chef de l'État donte euh, am na mbir yu bëri yu ñu doon xaar eggewul fii li ñu ko doon xaaree aujourd'hui il dit qu'il va nous parler on l'écoute espérons d'abord parce que du ma nekkul sax euh, espérance exigence la war a doon mhm. mu wax tey mhm. exigence la war a doon au au delà de d'une espérance bu waxee tey li muy wax mingo ak li kilifa yi wax d'abord méngoo aussi ak réponse par rapport ak ñi nga xamante ñoom ñoo doon manifester parce que manifestation yi message yi ñu fa envoyé dafa bëri weesu na mbiru Ousmane Sonko dëgg la moom moo taal lépp mais weesu na mbir yooyu message yooyu nag bu fekkee décrypté na ko ñëw jox ñu des solutions wala des débuts de solutions c'est ce mhm. et puis le Sénégal sera apaisé d'accord le dernier mot Pape laata ñuy dem euh, lal mergaddu bi fële rek ndax président à tout instant à tout moment mën na woote xanaa di attirer attention wu justice rek particulièrement le doyen des juges bi nga xamante ne euh, aboutissement wu lépp fi ñu nii ci décision am la la nar a jógee décision bi nga xamante ne war na koo euh, jël suba ci altine ji mhm. vraiment mu xam ne am na ñu ko jiitu woon ci place boobu noonu te tôt ou tard dina fa jóge am ñeneen ñoo xamante ni ñoom ñooy fa war a nekk euh, kut yu bëgg bu yóbbu Ousmane Sonko kut ko kut ba yëngal dëkk bi taal dëkk bi tam gis gëm naa ne dara jaru ko fi donc vraiment nañu def lu ñu tuddee apaisement dogal yoo xamante vraiment dina dalal xel yi ba pare libérer tous les détenus politiques. Mm-hmm. d'accord Pape dernier mot rek. Euh, euh, waaw xanaa di ñaan jàmm ci réew bi mm-hmm. ah, wa waaye ci ci ci ci ñaan jàmm boobu itam il faut ñu préciser ci la waykat bi waxoon jàmm mënta am fu dëgg amul. Mm-hmm. ñoom bu ñuy négocier ak moom nañ ko wax ne ko même bu weesoo mbirum Sonko parce que wax nga ko sànq xam nga Assane am na lu wax lu am solo ci apaisement lañ war a ne waaye ndax Macky Sall xam na loolu jamono ji nga xam ne yaa ngi ko wax léegi ñu ngi wër di wéy di jàpp ay jàmbur. te kii li mu exigé mooy ñu bakku ak i nitam ñi ngi jàpp ñu neen kon ñoom jëmuñu ci affaire yi apaisement c'est ça la réalité mhm. entre li ñu bëgg ñun ak ñoom image yi joxe ak li ñu ne di def du benn léegi nag li am mooy jàmm la ñu bëgg mënta am fu dëgg amul nañ ko wax ne ko déjà 2021 22 23 24 ñaari at dox ci diggante bi suñu diggante ki élection ba tey nit ñi li leen metti dafa bari Pape Ndiaye mm. parce que élection législative euh, xaw ma locale la xaw ma yooyu ba tey mënta am c'est-à-dire njiitu réew mi moom nit la koo xamante ne lu def ay élection nga di ko randal ñu seen mandat jeex ba yàgg du du mais du ñu dem organiser ay élection mm. xanaa mm-hmm. moom moom moom réew mi léegi nag beneen affaire am na ci buy waxee ci bu ñu paree ci mbiri Sonko parce que nit ñi liñ bëgg xam ah, te mu naqari ci seen xol te ñu bëgg ku leen leeral mooy waaw wala déet googu mu ne du ma ko wax mhm. loolu nag ci la war a wax waxaale ci benn yoon vidé ko benn yoon mu jeex mhm. Mhm. yàlla na jàmm am du côté de la régie bu fekkee ne en une minute rek mun nañu woowal Mamadou Mactar Sarr ñu jokkoo ak moom ndax euh, mi ngi yónnee bataaxal ngir mën a jokkoo ak ñun itam waaye ñu ngi ñuy xamal ne ab information gu ñu vérifier après la ne euh, ki nga xamante ne moom moo di capitaine Touré dañ ko enlever muy euh, gannaaw euh, vidéo bi nga xamante ne jàllale na ko ci euh, réseau sociaux yi itam yooyu yëpp mi ngi ci. Mhm. ci li nga xamante ne mooy xibaar yi ñu jot léegi si bi ñuy waajee yëkkati plateau bi xanaa ñu jël Serigne Cheikh Thioro Mbacké di coordonnateur u Pastef Touba mi bëgg réagir gannaaw ba nga xamante ne kilifa dina daje nañu xam naa moo fas yéene doon ku ñuy mujjee jël laata ñuy waxtaanaat ci ponk googu voilà Mamadou Makhtar Sarr. ñu ñu koy jéem a jox rek ci enlèvement boobu c'était prévisible wala. waaw parce que gis nañu benn vidéo boo xam ni moom euh, capitaine Touré def na ko pour confirmer démission bi donc mm. démission boobu noonu moom ba euh, euh, démission boobu lu am la parce que ñu bëri ñu ngi naan non est-ce que piraté wuñu kontam ak yu ne mais moom dëggal na ko xam ne loolee lu am la gis nañu également ci ay xibaar ni am na taxawaay boo xamante ni gars yi bëgg parce que li am ni c'est sûr que mooy arrangé wu leen parce que day mm. confirmer thèse complot bi nga xamante ngi koy ñi ngi koy wax te def enquête bu boo xam ne dafa tëddee njaaxaanaay mais gis nañu également bëggoon nañu yeggali dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñoo créé complot bi ci la ñu foq dossier bi seen loxo mhm. donc lu mel nii bu amee nii donc ils feront tout pour vraiment euh, tëj gémmiñam bañ ko wax loo parce que bu waxee du baax ci mais aurait été enlevé est-ce que ça va pas aggraver les choses également ak thèse complot bi ñu brandiroon ñu gën ko dëggal Mm-hmm. parce que bu fekkee ne li ñu. wax ah, mais dafa bokk ci corporation boo xam ne aussi dafa am nu ñuy doxee. mais enlèvement awa euh, amul lenn lu ko mën a justifier pour man bu fekkee ni euh, information bu vérifiée la. Mm-hmm. ce pays devient dangereux te. état de droit lañ wax donc am na yoo xamante ni bokkul ci. état de droit mais ci état voyou lañ ne il faut le savoir c'est un état <laughs> <laughs> ah, donc ah, day day day tiit la waate bu fekkee ni sa à ce niveau là un capitaine de la gendarmerie même mhm. s'il vient de démissionner mbir mu egg foofu donc euh, ça fait peur te disque euh, tension bi la war a te lii da koy yokk. voilà ñu jël euh, Serigne Cheikh Thioro Mbacké di coordonnateur u Pastef foofu ci diwaanu Touba sëñ bi ñu ngi lay nuyoo. allo. allo sëñ Cheikh Thioro Mbacké ñu ngi lay nuyu. allo. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. yaa ngi en directeur ci Walfadjri mel ni moom amul retour. mu mel ni jokkoo bi euh, neexul bu fekkee ne mun nañu jokkoo moom léegi laataa ñu yëkkati jotaay bi jox kàddu gu mujj gi Oustaz Sane Diouf voilà mm. kon mm. Euh, oustaz rek ñu bàyyi la ñu ndar képp li nga xamante ne moo di jotaay bi gannaaw nga xamante ne ëllëg ak jàmm ak salaam yu bëri bëri ci xew-xew te à partir de 6 heures du matin wal fajir war naa jël antenne. comme ni nga ko waxee yàlla na ëllëg nekkee noonu ëllëgu jàmm ak salaam. moom la mm-hmm. ñëpp di ñaan. Mm-hmm. parce que ñi fi wax bi ñu tàmbalee jotaay bi ba léegi amu ci kenn koo xam ne wax na ne bu subaa nañu taal bu subaa nañu toj kon loolu wane na ni am na effort yoo xam ne bu ñu ko defee. xëy na mën na am mën na am jàmm am euh, maa ngi jot léegi benn information bu jógee ci membre ñoo ñu doon nekk ci euh, institut islamique nee nañu euh, li ñu def nii tey benn jéego la waaye dinañu wéyale jéego yooyu ci képp koo xam ne mbir mi soxal soxal na la mm-hmm. ñu jokkook ñoom bu ko defee yëf yi mën a nekk loo xam ne du ñu bedd kenn ci ñi nga xam ne war nañu mën a participer ci stabilité am ci am ci réew mi loolu itam. Mhm. lu ñuy war a xaar ci ñoom la ndax mission la boo xam ne sax daf ñuy indil beneen beneen xalaat. Mhm. mooy ne il faut Sénégal am conseil supérieur islamique. Mhm. besoin la boo xam ne yaakaar naa li occasion bi la pour ñu créer ko fi ñu koy defee am na. institut islamique mën na ko nekk ña ko mën a def mooy ña fa toogoon tey kon loolu daal yaakaar naa ñoom war nañu xalaat. ba nga xam ne askan wi toujours dinañu am. seen version ci lépp loo xam ne mu ngi leen di mu ngi leen di jaaxal yaakaar naa loolu. Mhm. loolu loolu loolu lii mooy occasion bi pour. Mhm. Euh, loolu pour loolu am. jërëjëf oustaz Assane Diouf di rafetlu teewaayam ci plateau bi di leen fàttale ne moom du oustaz dong ndax ab journaliste la en langue mhm. arabe ñu ko xamul te umpale ko ñu wax leen ko tey moo tax euh, su analyser war naa analyser su analyser wul war naa analyser <laughs> ñu xamal ko askan wi Pape Ndiaye ñu lay jaajëfal rendez-vous rendez-vous incha allah Assane Gueye également. jaajëf Awa Deme. ñu koy jaajëfal Pape Samb ñu koy jaajëfal ndax boobaak léegi mi ngi taxaw toogul euh, benn yoon du côté de la caméra di jaajëfal ñu nekkoon itam euh, ci euh, régie bi. mu mel ni ñu ngi tëj nag ñuy jéggalu bu baax a baax di jaajëfal bu baax sëriñ di Sidibé ak sëriñ Aliou Keita di jaajëfal Saliou Bey di jaajëfal Pambalo Ndaw di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo faxe woon yépp ci coordination bi Mouhamadou Wité itam ñu koy jaajëfal di jaajëfal euh, Moustapha Diop Cheikh Hafiz Niass itam ñu koy jaajëfal ndax bokk na tey ci réalisation bi di leen jaajëfal yéen ñi sa leeru jamono wal fajri di jaajëfal ki nga xamante ne nag moo yor suñu naamar di Ibou ñu leen di jaajëfal yéen ñi